gars yi ñu siyaar leen Barcelone seen euh, xel ak seen xol ak seeni i xëtër lépp boo ko boolee bànneex la fi mu toll nii bànneex boobee nag ña nga cay féew féey euh, fële ca réewum Espagne benn par benn image yoo xam ne yu am solo la donte seen xol neexul ci lii di am ci mille réew di senegal te waroon a nekk réew moo xam ne mu mucc ayib la ñu ngi jéggalu ci loolu ci ñuy seetaan te nekk ci àdduna bi wala ngal di gis réew mi ni am ay tàkk-tàkk loolee nga xam ni gone yi sax xamuñu ko ndax ña ngi ko doon gis ci ay filmé yàlla na yàlla defal jàmm Sénégal defal ko bépp dëkk te yàlla def si tew tawféex ci li nga xam ne mooy réew mi. ñu bàyyi xel image yi nga xam ni moom lañ leen di tax bari. fii nag mbeddi Espagne yi nga xam ni daanaka Barcelone euh, benn coppati bu ndaw la rek ab wéeréeru doxantu euh, loolu gën yi naan doxantu euh, ci tàkkusaan gi gone Barcelone yi di ko bégale seeni supporters. supporters yi nag ngeen gis leen noonu bu ngeen leen gisee drapeau yooyu nga xam ni ñoom supporters kenn kum ci man di doon yaa ngi yor sab drapeau boo xam ne boo am solo la drapeau yi nag dara waralu ko lu dul maanaam euh, lii di espagnol wala lii di Barcelone maanaam bëgg naa doon li nga xam ne mooy ab dëkk bëgg doon am réewum boppam moo xam ni loole daanaka moom lañ def seen bopp donte amuñu ay kayit yu koy wane donte amagun pexe waaye lu ñu mën di def defar nañ seen i drapeau defar yëpp pour mën a doon. ab li nga xam ni mooy ab pays boo xam ne day dogalal boppam di dindil boppam footballkat yaa ngoog photo euh, bi nga xam ni gars yi dajaloon nañ ci ñoom ñëpp a nga ca nag donte ñoom ñëpp mën nu cee génn ndax gaa ñi boroj boroj ji bari na ak mbooloo mi nga xam ne moo leen doon teeru waaye quelques footballkatu yu Barcelone ngeen gis leen noonu ak seeni weer mu mel ni Busquets ma nga ca biir sa mboxloo bi ak Lewandowski borom weer yi nga xam ni moo nekk ci suuf te image bi indiwu ko bu baax a baax waaye nag jurdi alba moo ne ci kanam ak drapeau li nga xam ni wala laafam li nga xam ne mooy euh, réewum FC Barcelone comme ñoom ni nu ko bëgg euh, di ko dégg tey daal bànneex bi euh, gaa ñi xale yi seen soxna yi ngeen gis leen noonu koppatu yu baax yi nga xam ne gaa yi coppati nañ ko ndànk rek yor seeni koppati jàppale seeni i góor ndax daanaka ñëw leen yabaloon ca yoon wa. ba ne ngeen gis affaire yi noonu mu am solo. ndax gars yi nee nañ góor moom lu mu man jigéen euh, dafa ne ci ginnaawam kon jàppale googee ñu jàppale gone Barcelone yéen Catalan yi na ngeen a xam ni euh, maanaam am na solo bu baax a baax image la nag yoo xam ne yu rafet rafet image rafet yu mucc ayib euh, ci li nga xam ni mooy bile trophée trophée boobee nag ñaar fukk ak juróom-ñaar moom la ko gone Barcelone yi jël donte Real la ëpp lu ko jël waaye nag ba tey lii moom mbégte la tey gars yi nii leen ko dàkkee moom bu fekkee arrêté wul moom danañ ci sori lool Real bu ma juumul am na fanweeri trophée ak juróom waaye bànneex bi tey ak mbégte mi moom bu kenn yàqal catalan yi di fi tudd kenn nañu nañu bàyyi mu sedd bàyyi catalan yi ñu dund seen mbégte euh, dund seen bànneex ci li nga xam ne def nañ ko ndax championnat bi des na téewul ñoom ñu jël ko loole ak góorgóorlu la bu baax a baax loolee nekk njàmbaarte goo xam ne lu ñu mën a teg baaram la kii mi nga xam ne moom jël na lii di championnat bi di ko fa bees am beneen trophée boo xam ne moom it laal na ko bokk ci limu trophée yi nga xam ni mi ngi ko commencé di yebbi kon lii ndoorte la ci moom ak ay raay bandam yoo xam ne moom la takk fi mu toll nii daanaka moom mii di gone gi ma nga commencé euh, xàmmee fee ca Barcelone di commencé dund dundu Barcelone léegi biti yaa ngay commencé ñëw kon daanaka moom euh, ma ngay miin Barcelone ngeen gis ko noonu jàmbaar ji di euh, Lewandowski mi nekkoon ca Bayern Munich ñëw fii nag. ci gone catalan yi di leen jàppale ci seen équipe euh, fii di meilleure équipe bu Espagne ak démb ci ngoon lañ ko def ngeen gis njagamaar yi ak euh, seen photo bu rafet bi car macha allah photo la boo xam ne maanaam bu am solo ndax dañ leen a euh, peegal lenn ci li nga xam ne mooy biis yi ñoom it ñu defaru ba rafet jàppale seeni góor ndax jàppale googee tawféex lay doon ci ñoom sotti seek def si la moo tax ñu defum diiraan dajaloo ànd ci li nga xam ne mooy feetu trophée gi nga xam ni waa Barcelone ñi ngi koy feetu fi mu toll nii ndax feetu tubaab moom fii ci senegal la feet am arrêt waaye feetu tubaab amul arrêt dañuy xëy di feetu ba heure bi xëyoon di feetu dellusiwaat loolee daanaka sénégalais ñoom xamuñu loolu ñoom benn une de temps benn trente minutes ñu jaxase dëkk bi ñu toogaat mais ñii moom nii nga leen gisee nii. maanaam nanu solo nga xam ni daanaka feetu gi mën na leen a fekkaat ci mbedd yi ba suba ci heure boobu te dara du leen ci déranger ndax dañ koy préparer yor seen petit bon boo foqalewul lu ñu lekk naan benn potom ndox rek dañuy mën a dem seen yoon ba tey image yi nag bokk ci image yi nga xam tamit mbégte la ndax day am image yoo xam ne day wax rafet na lool car macha laf cet waa Barcelone ñi ngi leen di ndokkeel bu baax a baax di ndokkeel ñoom muudo gaa yi nga xam ne ñu ngi Sénégal MDR catalan bu mag bi nga xam ne fii leen senegal Sénégal Barcelone lay nooyee ñoom ñëpp Ablaye ñi ngi leen di ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziar bu baax di leen wax ne seenub équipe am na ndam donte Sénégal ngeen ne gis nañ taxawaay bi buñ dugalee vidéo gis nañ ni ngeen def gis nan abonnement yi ak transfert yi nga xam ne yéen a ngi koy yokk ci gars yi bu ko defee affaire yi moom di man di di man di dégg jàmm loolee bàyyi nañ ko xel tey it loolee xeebuñu ko benn yoon ndax eh, am na solo bu baax a baax taxawaay yooyee liggéey bi ñu ànd ci at mi at mi nga xam ne daanaka ñoo ci ànd di def vidéo Barcelone Real ak championnat Espagne ngeen diñu ca topp bu baax a baax di remercier ki nga xam ne moo nekk ponkal mii ngeen di di savi bi mu fi ñëw métti woon na lool ndax entraîneur bi mu fi fekkoon da doon talaxlaxi di commande xamul fu mu jëm moom it mu jël mbir yi teg ko ci yoon teg ko ci temps ak si di ko doxal te am projet de jeu boo xam ne nag bu nu mën a bàyyi xel la projet boobu maa ngi leen ko doon wax moom mii di gone gi daanaka ma ngi ko jàpp ci diwen ndax la mu bëgg a doxal lépp ci Barcelone xam la na ni maanaam am njëmbat la moo xam ne nañ ko bàyyi mu koy suuxat di def ndànk-ndànk ba keroog maanaam mu koy mën a buddi di doon toolum ñam bi boo xam ne bu barkeel lay doon loolee nag du xëy xëy sotti ma nga ca mi ngi ci yoone mi ngi doxal donte am na ay faay yoo xam ne mën nañ koo jubbanti waaye loolu lépp sotti seeg def si la dana teguwaat ci temps dana tegu ci heure ba Barcelone meilleur dikkaat ci li nga xam ni mooy suufus Espagne ndax loolee mooy mébétu moom mi nga xam ni ba Barcelone di doon Barcelone dëgg moo newoon ci équipe bi nekk takk numéro 10 bi jërë ngeen jëf yeneen information ci kanam tuuti Aladji Malick bi